bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.com. asalaamaaleykum mbokk yi yéen itam Alfayda la 90 international daal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen taxiloo tuuti rek ñu jukki leen li ci gëna a fës bokk na ci gannaaw ñetti weer ak noppalu liggéey yu mag yee ñu sumboon ci dëkk bu sell bi di Medina Baye daanu ko dooraat muy les grands travaux de la fayda tijania xalifa bu tedd bi jox ndigal Cheikh Mounhamina Cheikh Ibrahima Niass ngir mu dugal ci loxoom conférence de presse ba daa ngeen ci dégg Baye 6 100 pour def na ko ci càkkuteefu comité d'organisation organisation ba fële ca Poroxaan ñeel màggalu ko soxna Maam Jaara Bousso moom directeur général bu Sénélec di Pape Mademba Biteye euh, mu def ci nag lu tolloo ko 833 millions bu teg 896 mille 455 francs xalifa bu tedd ba nag di euh, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daal di koy euh, jagleel ab sant ak ngërëm daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne weer ak Rajab ak li muy tekki waaye itam Taïba ak la muy tekki ak gane si gi fa Maulana Cheikh al Islam a si àdduna ëmb lu bare bari ah, daa ngeen ci dégg ay boroomi xam-xam soxna Ngoné jaay xeen moo leen di ah, dalal te bitim réew roppalaan oh, wi Aline Batara Diop moom moo ko yoxee tàggat yaram daan ci ànd ak Serigne Moussa Kane li yéen kaay yi xëy tey ji daan ci ànd ak El Hadji Seydina Omar Cissé li lépp yembe mbokk yi xibaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala taloo lu ñu dikk ak yéen ci yàttal gi ak fu gannaaw bàkk bi lay doon. Le journal Ndeye mbokk yi daal leen ak jàmm ci bële jotaay xibaar Codou Seck madame Keneme moom laa janool ci wàllug machine bi nga dégg-dégg bi man di leer nañ leen ko waxee noonu la ñu koy euh, dooree dooraat liggéey yu euh, yu mag yenn sumb ci dëkk bu sell bi di Medina Baye di les grands travaux de la euh, fayda daañu ko dooraat rek gannaaw ab diir ba ñu noppalu bi si gën a fës nag moom mooy rek liggéeyu ko esplanade ba di ab bayal ba ab janoo ko taskatu xibaar yi lañu ci amaloon njiit la rek El Hadj Omar Cissé tey nag conférence de presse bi li mu accès wu mooy la relance des grands travaux de la Fayda Tijaniya comme ni ngeen ko xamee dañ fi sumboon ay projet yu ñu commencé woon waaye bi gàmmu gi jotee ñu arrêté doon bàyyi ñi en tout cas nit ñi ñi ko doon organiser mën a dem noppalu tuuti parce que xam nga ne toog nañ fi six mois wala sept mois boo xam ne ñoom ñëpp kenn demul fenn kenn tukkiwul kenn doxewul benn soxla gannaaw nag bi gàmmu gi passé lañ ne ok lijjanti jiwaat seen ay soxla ba ci kanam fekk ñu gën a noppalu ndax dafa métti woon loo xam ne nii at nga ko waroon a liggéey nga liggéey ko ci cinq mois xam ngeen ne guddeeg bëccëg liggéey nañ ko fii loolu moo tax nag ñu ne kon nañ dem noppalu jiwaat préparé wu waat soog a ñëw mën a yeggal liggéey bi léegi nag relance bi principalement c'est axé ci finition wu bi comme esplanade bi dañ defoon gros yi mu tombeek gàmm gi ñëw ñee nañ bàyyi ñu gàmm ci yàlla may ñu ñu mun cee gàmm gàmm gi passé léegi nag dañ ko war a reprendre pour finir ko def finition yi nga xam ne fii gàmmu gii di ñëw ñu mun koo jébbal xalif bi ñu mën cee gàmmu di ci mun a conférence di ci mun a def yeneen activités yu nekk donc loolu nag dafa laaj ñi nga xam ne nii mooy ñii ngeen gis fii ci taabal ji ñu équipe bi nga xam ne nii ñoo ko yoroon doon ci liggéey ñoom ñëpp ñu taxawaat ne ok nañ ko songaat pour que liñ ci bëgg soobee yàlla ak barke bày defal ñu ko pour que ñu mun ko yeggale ci jàmm ak salaam donc finition yi mooy finition carrelage mooy finition une partie de gros œuvre mooy une partie de plafonage la climatisation la sonorisation l'éclairage ak yi mu àndal yëpp y compris la voirie nga xam ne dinañ def tuuti assainissement parce que yéen ñëpp xam ngeen ne day tombe ci saison de pluies ci nawet la ñuy tombe nga xam ne donc même mun nañ gàmmu ci biir nawet loolu moo indi woon ñu def fi esplanade bi pour que tamit su tawee tamit dinañ mën a gàmmu ci jàmm ak salaam ndaxte suñu xase ba nekk ci suufu esplanade bi alhamdulilah dinañ mën a def li ñu bëgg ci gàmmu gi. Baye Ciss yemu ca Medina Baye euh, nouvelle ville mooy yéene bi ak mbébét bi soppi kanam mu dëkk bu sell bi euh, waaye itam defar bayal bi ba mu mucc ayib loole nag ni ko taalibe yi defee woon ca ndox ndoxteel la euh, lu waaye am rek nga dugal ko ci muy relance grand travaux yi Baye Ciss ba léegi commerce yi. kon nag relance su grand travaux yi mooy loolu aussi ya Medina Baye nouvelle ville nga xam ne ñu ngi waaj pour def lépp loo xam ni plan d'aménagement beeg assainissement yeeg plan yeeg yëpp ñu ngi ci ci liggéey bu baax actuellement dale ci ñolaaneem donc pour que ñu mën a continue travaux yi au-delà de esplanade bi nga xam ne c'est des travaux de finition maintenant dañuy envisager comment faire maintenant pour continuer li ñu fi waxoon mooy les grands travaux xam ngeen ko jumaa jaa ngi fii y avait l'hôpital y a l'université donc y a la Médina Baye nouvelle ville avec ay kër yu bees ak yooyu am na ak yeneen infrastructure mooy fii ci gannaaw y le centre d'épuration et de potabilisation des eaux avec château de y a la centrale solaire et cetera nga xam ne nii yooyu yëpp projet Medina Baye la yoo xam ne nii dañu ci bëgg a taxaw pour que liggéey bii ñuy def en amont ci esplanade bi mais en aval ñu ngi liggéey architecturellement parlant techniquement parlant ak euh, techniciens yi pour que yooyu yëpp mën a yemb mën a pare xam ngeen ne une nouvelle ville moom du caaxaan parce que urbanisation bi dafa compliqué merci am nañ appui direction de l'urbanisme dem nañ def réunion foofu sur le site man ak euh, directeur de l'urbanisme directeur de sant fiscaux directeur au cadastre ñun ñëpp ñu ànd ak géomètrie dem sur le site pour xool liggéey bi comment lañ koy mun a defaree mu yomb kon nag ñu ngi ci liggéey bi même suñu nit ñi déggul ñu ngi ci liggéey bi donc loolu dafa nekkul loo xam ne nii lu yomb la techniciens yi parti boobu ñoom ñu ngi ciy liggéey bu baax esplanade bi nag li ñu bëgg mooy mu nekk esplanade bu mucc ayib boo xam ne nii su paree day nekk référence en Afrique dans le monde en tout cas parce que tout simplement site bu ñu déjee yonent bi sallallahu alayhi amagul jumaa daal ñu ngi koy tabax waaye site bu ñu ko déjeel di fa moo di def ay manifestation religieuse amagul donc loolu moo tax ñu ne nañ ko defar ba mucc ay loolu avec la participation de toutes les bonnes volontés mooy taalibe yi xam naa ne sëriñ bi na leen ci gën a ñaax pour que nañ daan def rek ñëw indi ñi am doole ñi mën a liggéey ñi amas dërëm ñi amas tuut lépp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi pour que suba en tout cas ñëpp man bokkoon naa ci ci liggéey bi te lii man def naa ci sama doole def naa ci sama kàttan def naa ci sama am-am. Ibrahima Ciss euh, Baye ci wetam nag Cheikh Mounhamina Cheikh Ibrahima sa bokk ci agence bi ci ndigalu xalifa bu tedd bi ña nag na ma ko sante rek la koy defee moom itam ñu teewlu ko ki la Jomar sëriñ bi ki nga xam ne moo toog ci palaasu Baye xam ne mooy xalifa moo yore kàddoom kàddoom mooy kàddu Baye vision mooy vision bu Baye moom moo wax ne nañ taxawal grand travail ki ko yore yi tamit moo ko tànn man bu fekkutoon personnellement mu ooma ne ma demal bokk ci nga dimbale kii sax le fait que moom mu décrété ne kii maa ko teg wala instance bi maa ko teg rek man damay gis sama bopp obligé nekk ci waaye rawatina nag ñi ko yore suñ la facilité pour nga liggéey ak ñoom suñ la ubbilee seen xol ne la kaay nga liggéey ak loolu amoo leneen looy mën a def lu may mën a ñëw ànd ak ñoom ci gàttal daal loolu moo ma fi indi man engagé wu ci ci kaw ne xalifa bi moo ko teg ci kaw xalifa bi boo yoree kii wu bàyyi waaye nag ci kaw yi tamit ba yore ansaaru diin te ansaaru diin du instance boo xam ne dafay ñëw sosu moom it tamit di concurrence ak yeneen instance yi parce que moom loolu du liggéeyam ansaaru diin man tey jii damay sob soblu xam naa ne aayuma lool ci français waaye dama doon wax ne bu doon nit la ñu laaj ma ne noo koy qualifié mun wax ne mun naa nekk médiateur de la xam ne moo war nekk ci centre bi uuf ñëpp koo xam ne nii da ngaa yore looy parce que bàyyi fi mu ne grand travaux même bu xaalis bu ko diin a jox comme ansaar diin moo ëmb taalibe yëpp département yëpp fu nekk am na ku ko fa représenté am na groupe bu fa nekk doy na rek ñu jël message yónnee ko képp kuy président groupement ak képp ku yore instance ci ansaar diin ne leen sëriñ bi boo joxe ndigal lii sensibiliser leen nit ñi taxaw leen ci loolu rek bu ko defee loolu rek dara la te loolu mën nañ amul benn département boo xam ne amul koo xam ne su ma yëkkatee suma téléphone léegi instant danañ ci engagé wu pour bokk ci liggéey boobu loolu rek ak yeneen yoo xam ne soxla nañu ci ñun wax ñu ko mun nañ ci liggéey bàyyi siis sama xarit la ñoom ñi Cheikh Baye moom kenn waxi noppi ñoom amañes waaye loolu indiwu ma su fekkoon ne bàyyi siis sama xarit laa soxla këram laa koy fekk wala ma oo ko suma kër mu ñëw mais fii loolu amu fi fii di fi am mooy man loolu lay déclaré ci kaw ñu ñëpp ñu dégg ko ab ndongo laa bàyyi moo ma ñor bàyyi gisuma ko actuellement xalifam laa gis lu xalifa bi wax man loolu laa jàpp ne moo war a am te moo ma wax personnellement ma mu ngi may dégg mu ngi may xam nga nag nit ñi dañoo pànk ku nekk mu ne est-ce man ñeme naa taxaw di wax ne sëriñ bi moo ma wax nangam te amul ah bu boobaa nag ngeen xam ne man kon am naa lu kenn amul man waaye moo ma wax ba pare waaye nag dama ne la même bu ma ko waxutoon di moment moo signé xanaa bu dutoon dara sax li gars yi di wax ci état solidarité gouvernementale képp ku bokk ci gouvernement demande état bu mu doon su daanoo yow daanu su amee problème yow am problème kon nag rawatina nag su fekkee président bi tey moom ma nga doon euh, giseek xalif général euh, bi daal di koy dalal ba noppi dalal xelam Cheikh Tidiane Diagne. directeur général bu Sénélec Pape Mademba bi tey demoon ci dëkk bu sell bi di Porokhane ngir dal di daje ki nga xamante ne moom moo di xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké sang bu tedd bi nag daal di koy dalal ci ay kàddu yoo xamante ne ñenn ci njaboot gi ñoom ñoo ko daal di gannaaw bi Pape Demba bi tey daal di nuyanteeg ki nga xamante moom moo di sëriñ Mountakha Mountakha Bassirou ñu jokkalante ay kàddu ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dal di koy sant gërëm ko ci jëf ji nga xamante ne mu ngi koy def. sa xel dal. na sa xel dal. ak yéen ñi ànd moom di liggéey. ak yéen ñi ànd ak moom di liggéey. na seen xel dal. na seen xel dal. li nga xamante ne nag jot nañu ko liggéey ci kanamu sang bu tedd bii ki nga xamante ne moom moo di Alassane mbay di maire bu Porokhane moom moo ci dikkaat ci kanam mbooloo mi. ren amagum nañ 1287 supports de béton. yi nga xam ne mooy poto béton yi mboolem poto bant bu fi nekk dindi nañ ko 39 138 mètres de câble basse tension defal nañu ko 8 900 mètres de réseau haute tension aérien et souterrain. éclairage public maanaam lamp yi nga xamante ne war nañu ko def ci mbedd yi tamit directeur général bu Sénélec daal di góor góorlu lool la. am na 350 lanternes yoo xam ne livré nañu waaye soxna jaara yemut proxaan dafa ëmb mboolem koo xam ne nii rek yaa ngi ci commune bi xewlu soxna jaara yi cité religieuse Porokhane bi dugg ci àll bi si loolu si la ñu gërëm di sant nag sëriñ bi ak Pape Demba bi tey mii ndax dugalal nañ ñi ñeenti dëkk yoo xam ne yëpp tey dugal nañ ko si programme bi am nañ itam trois postes transformateurs yu quatre cent kVA cinq transformateur eau de poteau pour les cinq villages et forages mooy li ma doon wax noonu un disjoncteur aérien télécommandé à la sorti de Nioro un groupe de sept cent caviar pour la mosquée un groupe de deux cent cinquante caviar pour résidence Serigne bi ñëw na 833 millions bu teg 896 455. Pape Mademba bi tey demoon ci kër Soxna Bali Muntaxa Mbàkke laata moo jeexal visite bi ci kanamu ki nga xamante ne moom moo di Serigne Bassirou Mbàkke Poroxaan xalif général des Mourides nag sëñ Muntaxa dal na koy ñaanal bu baax a baax ngir Sénégal daal di am jàmm ba pare ne bég na ci moom ak service bi mu yor. waaw yëg-yëgu sëñ bi. sëriñ bi. meneen mbir la meneen mbir ngi noonu lu waral yëg-yëg bi rek mooy romb na 100 pour cent ci càkkutéefu comité d'organisation. fédération tax ci turu murid yi ak turu jullit ñëpp ñu daal di koy bere rek ab cant ak kum ngërëm Serigne Bassirou Mbacké ak Cheikh Tidiane Diagne directeur général Pape Demba Bitèye ci ndigalu sëñ Mountakha Bachir xalif général murit yilif Touba yilif itam Porokhane ak ci baatam te buñ ko waxee bàyyiwuñ benn murit bàyyiwuñ sax fat benn jullit boo xam ne ak jullit a ci yow kon ci seen tur ñoom ñëpp noonu lay dalal jàmm de ndax nit ki moom bu fekkee dafa mën loo mënut nga soxlaal ko ko sàkk ko sàkk ko ci moom mu jox la lépp ba noppi ñëwaat nag di la nemmiku loolu kenn xamu nu xanaa ëpp ak yëggu ëpp mën a wooye kon loolu seen yitte ju ëpp ak seen yëg gu ëpp rek noonu lañ koy mën a tudde dañ koy seereel mbooloo waaye man mi nga xam ne bis bu ne maa ngi fi di ko dund di ko jot fekkoon na mu xam ko bu baax kon nag ci turu sëñ bi noo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di la ñaan cant gi ak ngërëm gi nga jot li ko sa kilifa di la beral nag cant gi ak ngërëm ndax ñun ñëpp yam kenn ku ci am kilifa ku ne bu la sa kilifa diggalee benn nga defee ko na nga ko mane wala boo ci sawarul nga defee ko na la neexe ah, yow nag léegi mën nga koo bañ a wan ak da nga koy jëf ñu di ko gis kon loolu yaa ko moomal sa bopp yaa ko jëfal sa bopp cant gi ak ngërëm li yaa ko moom lañ ca moom nag jaaral nañ ko ci sa loxo nga àggale ko ci ñoom daa waxoon naa leen ne leen bu fekkonte ne li ngeen di wax cent pour cent am na ma xam ne Senelec am na cent pour cent ci li nga xam ne soxla nañ ko ci màggal ren nag ëppal ngeen cent pour cent xamu nu muy tudd ndax jànguma tubaab <laughs> kon nag ngeen xam ne bu fii liggéey bi daal fi mu toll nii li ci seen wàll liñ ci doon seen du lépp def ngeen ko ba romb loolu kon nag moom ginnaaw nun wax rek lañ ci mën ak ñaan waaye nag ki nga xam ne moo tax ngeen def ko mooy yàlla subhaanahu wa ak réew mi yàlla moom jeexalul dara barab bi nga xam ne da te rafetal ko lool matale ko lool du fii rek lañ lay waxale wax ji foo dem loolu lañ lay waxal maa ngi fàttaliku daaw bi nga xamee ne da nga ñëw ma wax ko sëñ Muntaxa dafa ne ma kooku de lu mu mas a wax def na te boobu nekkoo fa te sëñ Muntaxa du waxantu du waxantu nag te seereel na la loolu loolu rek bu ñu fi yemoon ñu xam ne nit ku baax nga di la ci sant di ci gërëm di ñaanal yàlla dara bañ ko yàq. Serigne Bassirou Mbacké Porokhane Pape Mademba bi tey ne lépp lu jëm ci màggal gi euh, aju ci wàllu ko courant daañu ci taxaw firnde gi nag mooy ñeenti euh, groupe électrogène daal dinañ ko fay yóbbu ngir euh, ñu bañ am benn gàllankoor ci wàllu ko courant dalal na xel yi itam ci lu jëm ci branchement sociaux yi waaye itam dalal xel yi ci yóbbu courant ci dëkk yi wër Porokhane ma Mademba bi tey ak Cheikh Tidiane Diagne. ñu raccordé comme nu ko xalif bi ñaanee woon dëkk yi nga xam ne ñoo wër Porokhane te amaguñu courant ñu raccordé raccordé leen yokk nañ si juróomi dëkk lu jëm si wàllu éclairage bi joxe nañ juróomi téeméer ak juróom fukk làmp yoo xam ne dina gën a permettre dëkk bi gën a leer pour améliorer sécurité bi bu ñu xoolee aussi si wàllu extension bi tàllal nañ si lu war a mat juróom fukk kilomètres réseau yoo xam ne def nañ ko pour permettre nit ñu mun a am courant juróomi dëkk yokk nañ ko ren si dëkk yu nga xam ne amuloon courant loolu yëpp buñ ko xayma investissement bi mu ngi toll si 833 millions contre l'année 791 millions loolu yëpp pour wane dëkk bi nu muy màggee mais aussi Senelec pare na pour que lépp lu nga xam ne moom moo war pour war a doxal màggal gi nu mu waree ñu def ko ndaxte lool mooy li nga xam ne moom la président bëgg loolu mooy également li nga xam ne moom la ñu sant te chaque année bu amee daf ñu ciy soññ moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax bu mu ñëwee tey ñu permettre ñu ñëwaat taxaw fii si kanamu sëriñ bi ñaan ko mu ñaanal Senelec ñaanal personnel Senelec jàmm ak stabilité mais surtout également mu ñaanal président de la république bi nga xam ne moo ñu dooleel moo ñu kattanal ba pare chaque fois di ñu soññ pour ñu gën a def liggéey bi ren comme nuñ koy defee chaque année indi nañ ñeenti groupe électrogène grande mosquée bi kër Xaadim Rasool indi nañ fa groupe électrogène mais këru gan yi tamit indi nañ fa groupe boo xam ne moom mooy permettre ñu kii donc am nañ ñett yoon yoo xam ne mun nañ fa jëlee courant électrogènes yoo xam ne bu ñu amee rëq-rëq ñaanuñu ko moom dinañu permettre ñu démarrer courant bi kon moo tax dañuy sant yàlla et am nañ yaakaar bu baax te gën a bu soobee yàlla yëpp dina jaar si yoon pour nit ñi am courant mun a ñëw màggal si ak jàmm. waa branchement sociaux yi moom dafa nekk benn volet social boo xam ne président moo ko indi comme nuñ ko doon defee at yu passé dinañ ko defaat et yaakaar naa ne équipe yi ñu ngi si bés bu ñu terminé dinañ def évaluation bi wax ko comité d'organisation. mu nekkoon euh, directeur général lu démb bi tey euh, dëkk bi di Mbap ñoom itam seen poste de courant ba rek daal di nañ koy daloo ñax nañu askan bi rek ngir ñu sàmm ko fonk ko waaye itam dalal xelu yeneen dëkk yi nga xam ne euh, joteguñu ci courant wax leen itam ne daañu bokk ci yi ndax fii léegi deux mille trente cinq courant bi dina wër Sénégal ki di Pape Toby Gaye ma ngay tontu ay laaju Cheikh Tidiane Diagne. mooy courant dafa war a daj fëpp mais mënul dajandoo fëpp li muy andi nag mooy bu weesoo la république sant ñu ko mooy gox goxaan lu mu sori sori ñu jéem indi fa courant mu mate fëpp mënul matandoo fëpp nag loolu je pense que yàlla rek moo am kàttan boobu moo naan kun lépp nekk ñun nag ay nit lañu dañuy jéem wax dëgg yàlla seen maire du weesu deux semaines Goumba Gaye moom presque chaque deux jours ma gis ko monsieur Alassane Mbaye du weesu deux semaines yoo xam ne du ma woo di ma fàttali ne bii dëkk amul courant bii dëkk war nañ fa def courant donc ma bëgg jàppale ko bu baax fépp fi nga xam ne nii loxo mën na fa dugg en tout cas si Sénélec si wàllu ko ñu ngi fay taxaw leneen nag mooy li ñuy ñaan mooy courant bi ñu naga taal ni mu naga leeree fii yàlla na mbiru ñëpp leer noonu yàlla na fi koom-koom am sax fi ñaata dëkk ngeen defagum. dëkk na su ma ko xaymaa daal mën nañ ne nekk benn yi électrifié nañ la donc loolu léegi muy ay jéego yu mag si électrification rurale am nañ yaakaar ne fii wax deux mille trente cinq ni ñu ko président de la république Sénégal. lan mooy recommandation yi pour askan wi gën a xam njëriñu ñun daal li ñu di ñaax mooy que électricité boo ko ñàkkee di nga xam mais boo ko amee aussi bu ko yàq gis nañ fi li fan yii yëpp mooy électricité boo ko amee nga koy yàqanal xam ne mën na la jariñ du leeraay kese lay jariñ mën na la jariñ aussi nga am ay jumtukaay lu mel ni moulin yaa xam da ngay ñaw wala leneen nga koy jëfandikoo bu mu andi la koom ko yéen a ngi rassuré yeneen village yi monsieur le maire wax ne war ngeen fa courant waaw ni mu ko waxee programme aujourd'hui li ñu sant mooy ko fii wax courant mate fëpp programme yi nag village bu amul tey courant rek xamal ne yaa ngi si benn programme mooy laa wax léegi nii rek mooy que yàlla rek mooy xëy matale mais ñoom ñëpp am nañ daal programme boo xam ne fii wax 2035 dinañ mat incha allah secrétaire général Sénélec euh, directeur école élémentaire bu Mbàpp wax ci turu askan wa fësal na mbégteem donte rek am na ñu jafe-jafe ci wàllu ko yoon ba tàllal ci euh, loxo président Macky Sall laata moo wax ci njëriñ li courant bi nar am ci l'école bi waaye it ci dëkk ba Momat Soxna moom it ma ngay tontoy laaju Cheikh Tidiane Diagne waaw courant bi ñu sant la d'abord di gërëm gouvernement Sénégal bi nga xam ne moo ñu indil courant bi courant si wàllu liggéey bi surtout si jàngale bi dina gën a xarañ di mën a jàng seen leçon yi comme ni mu waree ndax motul ñaari fan rek a mucc gën a aussi relever le niveau des élèves si wàllu aussi jigéen ñi doo leen gën a yombal seen liggéey ndax jigéen ñi pour ñu soq seen dugub wala ñu wal ko dañ doon dem ba ñoolo te dina euh, war a toll si ñetti kilomètres mais tey bu ñu amee courant am seen moulin loolu yëpp dañ ko mën a defee fii courant bi laal wax dëgg yàlla surtout développement la dina gën a village Mbap gën a tax village Mbapp dem ci kanam. dafa mel ni dëkk bi dafa am enclavé ah. waaw dëkk bi aussi problème yoon la ñu am parce que yéen bi ngeen ñëw gis ngeen ko yoon bi neexul euh, loolu tamit jafe-jafe la mu ngi tàllalaal loxo yi gouvernement Sénégal mu jàpp ñu si yoon. waaw yoon laa léegi yaakaar naa bu ñu ko amoon duñu waxati dara waaw dinañ gën a sant yàlla. léegi courant bi Pape Demba Tall euh, leeral na dëkk bi yëpp. waaw dëkk bi yëpp leer na macha allah. dëkk bi yëpp leer na macha allah waaw ñu ngi bu baax di jaajëfal encore une fois gouvernement Sénégal la République monsieur Macky Sall waaw ndax lii nekkul lu yomb te équipe bu ko liggéey aussi liggéey bu gaaw lañ ko liggéey moins d'une semaine ñu def liggéey bi yëpp vraiment ñu ngi remercier di gërëm ñëpp waaw. école bi am na courant fi mu école bi am na courant waaw macha allah boobu liggéey ndax école bi xam ngeen léegi njàngale bi dafa laaj lu mel ni ordinateur lu mel ni imprimante lu mel ni photocopieur te loolu bu école bi amee courant dana gën a yombal suñu liggéey ndax man su ma bëggoon photocopier damay dem ma ñoo la photocopier mais léegi comme am na si école bi heure su ma neexee yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point ñaar fukki simili moo bootu ci gannaaw juróom-ñeenti waxtu fële ca cœur de ville bu Kaolack ñu waxtaanee wàllu ko koom euh, projet Feed the war Nafori Wartaji ak dooleel mbay lépp di ay projet bootu ci USAID ba tey ñoo ngi wéy di euh, def ay jéego ci foire internationale bi jaaree ko ci ay bëccëgu tey xalaat Ndiasse Ngom euh, mi ngi wax rek noa bi ay li dooleel mbay di tekki. dooleel mbay benn ci projet yoo xam ne ni projet USAID la année bi dañu jàpp ñun projet yëpp yi nga xam ne projet USAID dañuy liggéey ci zone centre bi ñëw participer ci foire bi nii indi entreprise yi nga xam ne nii suñuy partenaire lañ pour ñu mën a ñëw fii wone li ñuy def muy doon ay produits mais également man fi jëlee ay contacts yoo xam ne nii dana leen permettre ëllëg li ñuy def mu gën a jëm ca kanam wone également li ñuy def pour mën am ay clients mais également ay partenaires yoo xam ne nii dinañ continuer di liggéey ak ñoom ëllëg mi ngi noonu projet na forêt nag kaka jiite di El Hadji Mamadou baaxoo Diouf nee na nag daañu ci jox gëdd xale yi ak soxna yi lu waral nag seen taxawaay ci foire ba mi ngi ci ñëwaat. taxawaayu na forêt tey ci activité bi moo di woon ñëw ak suñu nattango yi nga xam ne ñoo bokk benn programme bu yaatu bu USAID yore ñu tuddee ko Feed the Future boo xam ne tey jii nii na forêt doon leen ak entrepreneuriat yëpp ci benn programme bu yaatu boobu lu ñu liggéey ñoom ñëpp na forêt yore ci benn pàcc bu am muy lépp lu jëm ci wàllu horticulture donc yitte mooy euh, fexe ba dooleel ñi yëngatu ci wàllu horticulture ñu mën a yëg seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy yëngatu ci wàllu production ci wàllu commercialisation ci wàllu transformation mais aussi la mise en relation au point que lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ñu mën cee gis seen bopp am na ci ñoo xam ne dañu leen di jàppale ba ñu mën a accéder à au circuit de commercialisation à l'extérieur avec l'export loolu mooy jubluwaay bi nga xam ne moom la ñu am parce que yéen nag jox doole lool la frange féminine mooy jigéen ñi mais aussi jeunes yi xabaaru faydu bi faydu bi lépp aju ci wàccaayu gàmmuk Taïba Niassène ñu jàpp ko nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weex wi ñu euh, ne euh, rek euh, ñu bëgg a yi dëkk bu sell boobee di Taïba Niassène nga xam ne fa la Mawlana Cheikh al Islam gane àddina juddoom nag ëmb lu bare bare bari waaye itam bërëb ba am lu mu gënee yeneen i bërëb lan la leen gënee soxna Ngoné Ndiaye. béréb bu gënee moromu bérébam la fa ne a tax waaye suuf yépp suuf la barab boobee jullit ñekk taalibe bàyyi dëgmal mooy tay ba Taïba Taïba di benn ci barab yi nga xamante ne ràññeeku nañu lool ci àddina di ab bunt ngir ñu waxtaanee li barab di gënee moromu barabam Makka bu gënee beneen place bu dul Makka la fa Kaaba ga nekk nag Medina bu gënee beneen place lafa fa yonent bi nekk rek a tax Baytul Maqdis bu gënee beneen place la Baytul Maqdis nekk leen fa Faas Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bu gënee beneen dëkk la fa Cheikh Tidiane tëdd tax waaye Taïba tam bu gënee beneen dëkk buqaatul mubaaraka la ndax fa la mahbatul wilaayatu foofu la maanaam foofu la yàlla def mu eh, juddoo la fa yàlla def moom rek ko ko xam. gannaaw kàddu yi Serigne Adi Touré yooyee mënees na cay sof ne Taïba barab la waaye itam rajab weer la ci weer yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Cheikh Ibrahima Ndiaye. ci weer rajab boobu day ba mu amee fukki fan ak juróom ci bés ci ndeysaan borom kàllu gu rafet googu noonu kooku nga xam ne mooy cheikh bi jëmee maraate bi mboole marte bi moom la waate mooy cheikh bi jëmee aw saafi yi mboole melee mun ci moom kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim si la judd weeru bëri ngëneel la weer rajab boobu yàlla ba mu séddalee weer yi dafa jël Chaabaan jox ko yonentu Yàlla salaay salaam jël Ramadan mi weeru kool jox ko xeeti yonentu Yàlla salaay salaam wante tam jël weer rajab naan rajab bi saar yi moo jël rajab mu engagement yi moom moo ko jël yàlla weer yëpp ko jox jaam yi ba mu may weer rajab kon Ibrahim jaaree ko ci euh, Rajab doyoon na rek ngir ñun ñëpp ñu màngu utali tey ba bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Cheikh Moustapha Mohamed Niass ma doon fàttali histoire Layla. doy na rek ñu ne la yow da nga am cofeel ci nit ne la fii la gënee àddina kàccoor ba nga xam ne ab kàccoor la woon rek bëgg aw jigéen dafa romb kër ga rek naan uqabilu zal jidaara wa zal jidaara wa ma xubbu diyaara shaxaf na qalbi walakin xubbu man sakana diyaara rombee di fóon miir bi fóonul miir bi waaye ki dëkk ci biir miir bi moo tax muy fóon miir bi yow nag bu ñu ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu tey ba la gënee àddina bu ñu ootee ne bis ba jot na muy 15 rajab dëgg-dëgg képp kuy taalibe te am cofeel te amoo benn ngant war nga yëpp jëm fi nga xam ne mooy tay ba tax tay ba foofu boo fa demee njëriñ rek moom nga fay fekk kon tay ba Cheikh Ibrahim la ñu jëm ngir fàttaliku ko fu góor mun a teg tànkam boo demee Cheikh nag teg na tànkam ci kanamam te dëgg te moo ko wax waaye nazaatil axtaabu yow man raaw ni wan xaadu liya wan xaadu bu yëpp buñ dajee am werante werante bu ñu ma gisee rek waajaa nga amut morom kookee kon la màggal ñaar fukki fan ak juróom-ñetti ci weer ak janvier bi ñu nekk nii. jox la cër soxna Ngoné Ndiaye ren dañuy des ak sa micro ak Cheikh Ibrahima Ndiaye ñëw ak moom rek ci taxawaay ba ñu euh, war a am ci euh, gàmm googe waaye itam euh, njëriñ li nga xam ne rek weeru rajab am na ko ak lan mooy weeru rajab. weer rajab weeru bëri nga ne la woo xam ne mënuñoo lim lépp. waa dinañ ci jukki ñu ci mën a jukki dafa am ñeenti weer yoo xam ne. ci njëlbéenu lislaam ba ci jamono tey gi dañoo xaraame ko ci moo xaram moom yaa ngi dégg ak weer rajab ñetti weer yëpp doonoo toppalante benn rek moo ci beedeeku mooy weer rajab kon dëgg-dëgg yàlla mu ngi ko doon préparé fardu jaamia kooku di Maolana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ma ne weer rajab ci bésab alxames seeneen may Abdullah Aminata mu ëmb ko ci boobu Abdullah mi ngi am ñaar fukki at Aminata am fukki at juróom-ñett mu yaa ngi dégg mu ëmb ko ci ci ba mu juróom-ñeenti weer ci rabi awal ci fukk fan ak ñaari ci la yonente yàlla Musaa di judd loolu ci weer rajab la weer rajab gannaaw bu ñu yónnee yónnante Yàlla salaay salaam ba mu am juróomi at yaa ngi dégg si la gàddaay gàddaay gu njëkk ga jëm Abacha moom demutoon waaye Seydina Ousmane moom leen jiitu woon ñu dem ci Éthiopie ca négacé mu làqaleen loolu ci weer rajab la ci weer rajab gannaaw bu mu amee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nan rañaane yónnante Yàlla salaay salaam mu dem ba passé kaw ñëwaat ci lu loolu ci weer rajab la kon weer rajab ngay gis ne kon si ne indi julli fekk yónnent bi saa sa ba mu demee julli nañ ko fa jox kon loolu weer rajab la njëkk yaa ngi de weer rajab yónnent bi saa bu doon jubli ci baytu muqaddis la doon jubli jublu ci weer rajab la jibril wàcc ci weer rajab la ci weer rajab ba mu amee fukki fan ak juróom si la Seydi Ali karamala wajju judd nga xam ne moo moo nekkoon sëru yonentu yàlla ma sallallahu alayhi wasallam ci weer rajab ba ci weer ba tey ba mu fan ak juróom ci bésa alxames ci gannaaw takkusaan borom kàllu gu rafet googu noonu kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim si la judd ku ci weer rajab la ci weer rajab gannaaw bu amee fukki fan ak juróom ci bésa samedi gannaaw bi midi passé si la Mawlana Cheikh Ibrahim gën a àddina ci kon weer rajab weeru bëri ngëneel la Maolana Cheikh Ibrahima daal di judd ci te dëgg-dëgg Taïba bàyyi lu ko yàlla may ci noonu la ci yonente yàlla ma salaam dafa wér kenn amu boo seetloo bàyyi moom rek moo juddoo Medina sanc Medina Taïba Medina la Taïba tudd ci Medina moo juddoo Medina yaa ngi dëgg sanc Medina te Taïba mooy tee ku teel yëf yi ku teel ruux yi ku teel jëm yi kooku mooy Maolana Cheikh Ibrahima moo tax alquran a tayyibaat li tayyibin wa tayyibun li tayyibaat ulaa'ika mubarra'uuna mimmaa yaquuluuna loolu ma na waajoon karim kooku mooy Maolana Cheikh Ibrahima Niass moom Cheikh Ibrahima Ndiaye nan la ñu war a demee ba ban doxalin la ñu fa war a am ngir rek bépp aajo bu ñu fa ñaan rek mu mën a faju Cheikh Ibrahima Ndiaye ba léegi soxna Ngoné Ndiaye ren. man damay wax ne weeru gàmm bu jeexee danoo war di gàmm ci Mawlana na Ibrahim ñu ne ma lu tax ma ne leen weer yu douze la fukki fu weer ak ñaar douze mois la yaa ngi de rabi awal moo ci gàmm bu dine un benn weer bi onze mooy des onze mooy huwa ku nekk xamal huwa mooy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu kon danoo war di fee ci géej gi kon taalibe yi ñu ngi leen di oo ci Tayba Tayba képp koo xam ne ba ngaa wér ñëwal Tayba képp koo xam ne ba ngaa am jàmm war ngaa Tayba képp koo ñu ci ay élection képp koo xam ne ba ngaa jot réew mi ñëwal Tayba képp ku bëgg a wér ñëwal Tayba képp képp ku bëgg a ñëwal a a a am texe àlaaxara mm. taalibe bi am na nu ma ko war a demee ngir mën a jot ay càq ñëw ci sell sa sëriñ moo gën a sell ñëpp sa sëriñ moo gën a taaru ñëpp sa sëriñ moo gën a rafet yëpp parce que yàlla nëbbut ko bàyyi moo gën a feeñ lii feeñ parce bu fekkee ne da ngaa bëgg sa yëri rafet bàyyi moo dàq xet gu neex mm. bàyyi dàq sikkin bu rafet bàyyi dàq lépp looy royee bàyyi rab bàyyi mooy star bu gën a mag kon dëgg-dëgg kon booy ñëw Taïba ñëwal ci rol rafet ñëwal ci taar ñëwal ci mbaax waaye ñëwal ci dal ñëwal ci jël yaa ngi dëgg sa bopp jokk Seex Muhammad may xaadimu ma boo demee yaa ngi dëgg buñ lalee gàmmu ga yaa ngi dëgg bàyyi lu ngay def yëpp dam teewal sa sëriñ waate jëlal sa xaalis nga yóbbaale ko nga préparé kon nu ngay ajee nu ngay préparé ngay préparé Mawlana Cheikh Ibrahim dafa waa ne fii nii dama jaar rek dem ñu mel ne Baye Ibra Fall yaa ngi dëgg Ousmane Ndiaye eh, Thierno Assane ñoom ñoo ma xaamee rek moo tax ma toog moo tax Ibou Diouf ne ndaw fu mu jógee ndaw du yaram bàyyi fu mu jógee koo xaalam fu mu jógee koo dara des fo yàlla benn rek la ci am yàlla bàyyi xaqu la Cheikh Tidiane xaqu la yéen te ama sa xaqu la bàyyi loolu yëpp moom la ko yàlla yàlla jox kooku mooy Maolana Cheikh Ibrahima Niass moteur bi koy doxal mooy xaq di Muhammad mooy yéen bi ko Cheikh Tidiane wante mu àggal ci pay yàlla bi kooku mooy moo tax bàyyi na wa kuntu waru faaliyaat wa sura kon alfayda ñu leen gërëm mi ngi noonu dañuy des foofee ca euh, Taïba Niassène ba léegi euh, nga euh, wax fa sa aajo rek mu faju ki nga xam ne rek moom mooy Mouhamed Moustapha Niass mi ngi koy dëggal. Taïba de moom xam nga Baye ci jëm boobu moo njëkk wax ne moo ñaan yàlla yàlla faj aajo képp koo xam ne da ngaa ñëw Taïba loolu nag li muy firi ko xam Baye radiyallahu anhu ak Baye mi xam ne moom ñaanam dellu mukk yàlla delloo ñaanam ndax laminam dafa dëppoo pied bi yàlla bi faj wan wala boo yàlla nga jëriñ wan faaxu naa aman xasada ni dëgg ku jëm fa nga xam ne mooy Taïba pour uti fekk Baye radiyallahu anhu foofu moo tax ñu ngi am yaakaar ci ngisal pour ñu danañ waaj jëm fa nga xam ne mooy Tayba pour xencu wan faaxuna jami amal xasas ni Baye waxoon te amuñ sikki ni incha allah buñ fa demee loola mooy am na comme ni ko Baye waxee radiallahu anhu kon nag ñi xër mboolem taalibe yi fi ñu mën ne ci àddina bi danañ bis bis la boo xam ne mu ngi noonu ñëw na nañ ko bàyyi xel nañ ko fuglu ñun ñëpp euh, waaj te waaj bi kuy jug jëm ci tukki war nga am yóbbal te yóbbal bi moom mooy fexe ba nga xam ne nañ fóot suñ xol yi raxas suñu ndab yi taataan te am nañ yaakaar ne bu ñu demee incha allah wala day naam masjid boobu ñu waxoon xam ne moom la sëñ Mbay radiyallahu anhu waxoon ne taalibe bi saano xaalam loolu wax daay man bu ñu demee danañ ko fekk te incha allah boobaa bu xooli satee ndab yi set danay mën a duy ba xam ne bu ñu ñëwee nekk sax ci àddina waatuma ñun suñu bopp kon nag soxna Ngoné Taïba ngoog te Taïba dëgg-dëgg dafa ne ko denc ñaari barab yooyu barabu a na rek bàyyam Alaaji Abdoulaye mi nga xam nekkoon na fa di fa nokki euh, na rek ñu ne fa la nekkoon ñu dem ziyaare ji barab boobu ki xam ne moom mooy borom jamono nga xam ne dëgg-dëgg mooy xawsul ibaad nafal bilaadi comme ni ko alhaaji ma abdu ña nga waxee taala anhu nee na fa la gane àddina ñun ñëpp war nañoo takkaayu jubli ji fa nga xam ne mooy foofa utiwuñ fa nag keneen ndax yoon caala ibrahima ne inni zaahibun ilaa rabbi sayahdini waxtu rek dafa laxas jëm ci ab dëkk jugee dëkk dem dëkk uti yàlla na ne fi fa fa mu xam nañ ne fii ñu jugee fu nekk bàyyi radiyallahu bu mu fag ñun waaye fañ jëm ne tamit am nañ yaakaar tamit ñu fa demee dinañ fekk Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu xabaar yi bitim réew xibaaru bitim réew roppalaan wi Alioune Batara Diop moo ko yore maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Ndeye Khady Sadio xibaaru bitim réew des koy dooree ak secrétaire d'État américain bi la di Anthony Blinken moom mi la nag door na ab tukki ni meeku ci réew Afrique yi lii ni ngi di démb ci diweer gi lii doore ko nag foofu ci réew bu Cap-Vert ginnaaw sommet des États-Unis d'Afrique bi nga xamante foofu ci Washington li ni mel la bokk yoo xamante jot na am ci engagement yi nga xamante ni am ko foofu ci ndaje bi nga a jàpp ni mooy tukki ni meek bi nga xamante ni moom la secrétaire d'état américain bi di Anthony Blinken door ni ngi di démb ci diber gile fas na visité nag luy tolloog ñeenti réew ngi bokk ci réew Afrique gile doore ko nag foofu ci réew bu Cap-Vert. xabaar yi bitim réew. ñu ginnaaw nag festivité yi nga xamante ni amoon na fa foofu ca réew bu Guinée Conakry nag ñu jot fa ne mag lu tolloog doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan fukki doomu aadama jëlee si ay gaañ-gaañ yu mit la mel ne bokk na ci nag match bi nga xamante ni amoon na ci diggante réew bu Guinée Conakry ak réew ci jamono ji nga xamante ne askan ñu ngi doon célébré seen victoire ci noonu nag ci lañ jot a gis ab jéye bi nga xamante jot na fa am benn du tollook ñetti doomu aadama ñàkk seen bakkan fukki doomu aadama jële ci ay gaañ-gaañu métti yoo xamante ñu jot leen rawale ca l'hôpital ya mbir yi mel mu ngi am ci ajuma gi ñu génn fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier yi bitim réew wax ci beneen mbir di coow li nga xam muy am ci diggante réew bu Éthiopie ak réew bu Somalie ki nga xamante ni moo di secrétaire général bu ONU bile di Antonio Guterres moom mi leen nag mu amal ab médiation maanaam ab dialogue boo xamante ne indiwaat jàmm ci diggante ñaari réew yooyu li rawatina ci diggante kilifa yi kilimel yi Abiy Ahmed doon élimaani jëwriñ foofu ci réew bu Éthiopie ak kii di Hassan Cheikh Mouhamadul doon président réew bu Somalie lépp nag bokk na ci nag sommet bi nga xamante ni mu dajale woon g bi nga xamante ni moo ci doon lekk fan foofu ca Kampala xabaar yi bitim réew jeexale xibaari bitim réew ci frappe ukrainienne bi nga xamante ni am na ca marché bi nekk foofu ca gox bii di Donetsk ginnaaw xibaar yi nga xamante ni pro-russe yi jot nañ ko fësal lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñaar doomu aadama jot nañ ci ñàkk seen bakkan mbiri li mel mu ngi am démb ci dibeer gili ci cong boo xamante ni nag réew bi Ukraine ñoo ko def foofu ca Donetsk ginnaaw xibaar yi nga xamante ni ñi bokk ci administration bi nekk foofu ca réew bi Ukraine jot nañ ko fësal bilan bi nga xam ne jot nañ ko amagum nag mu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci jéye bi ni mel. xabaar yi bitim réew. jërëjëf Ndeye Khady sant la gërëm la jàmm ñuy xëy yàlla nañu ko fanaanu kenn ay jàmm moom la ñaan ci askan sunu gaal. xabaaru tàggat yaram sëriñ Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu bokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàgg yaram mi dañu koy dooree ak uh, ñaareelu bëccëg uh, Coupe d'Afrique des nation bi am jamono yi ci Côte d'Ivoire nag dem ci groupe E bi nag Afrique du Sud dafa daan Namibie bi ñeenti bal ci dara daal di bokkaat ci course bi groupe F Maroc ak RD Congo ku nekk benn bal nga dugal sa morom groupe F ba léegi Zambie ak Tanzanie ku nekk benn bal dugal sa morom. tey nag lay door ñetteelu bëccëg bi groupe A Guinée équatoriale ak Côte d'Ivoire bu juróomi waxtu jotee lay doon ci boobu la waxtu tamit ci la Guinée Bissau di laale ak Nigéria bu juróom-ñetti waxtu jotee groupe B bi ñoom ñooy jël. Cap Vert mooy laale ak Égypte ci boobu la waxtu tamit Mozambique dina ci laale ak réewum Ghana ñu daal di leen fàttali nag huitième de finale yi nag ñaari équipe dong ñoo qualifié gum mu mooy euh, Sénégal ak euh, Cap Vert ginnaaw gaañu gaañam Mohamed Salah nag delluwaat na ca Liverpool ngir fajo ji waaye nag euh, mën naa dund yaakaar bu fekkee ni Égypte dem na finale moom mi du Mohamed Salah mën naa ñëwaat ci compétition bi ñu dellu siwaat fii ci sunum réew waxtaanee li nga xam ni moom mooy Ligue bi lu bëccëg bi match bu ñu footballaat diggante jàmbaar ak Sonacos ñaar ak ñaar la ñu def. Guédiawaye football club dafa daan Casa Sport benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur ak Jaraaf ku nekk benn bal nga dugal sa morom jamono bu Fatick fekki Stade Mbour daan ko ñaari bal ci benn Linguère daal di daan AS Pikine benn bal ci dara Génération Foot daanu ci kanamu US Gorée ñaari bal ci benn Wakaam ak Tëngéej FC dañoo tëwa ku nekk dugul sa moroom benn bal ñu waxtaanee football ci euh, jigéen ñi D2 bi nag football nañu seen ñetteelu bëccëg euh, démb AS Kolda nag moo fekki euh, Real Tessito làpp ko làpp yu metti 15 but euh, la ko dugal ci dara fukki but ak euh, juróom ci dara ma nga woon ca Marsassoum loolu nag euh, ci jigéen ñi la ñu des ba léegi ci footballu jigéen ñi waxtaanee qualification mondiale. ñu am lu yées ñaar fukki at ci jigéen ñi ba léegi gana nag euh, daal dinay éliminer Sénégal Sénégal du dem coupe du monde bi ñu jagleel ñi am lu yées ñaar fukki at ginnaaw bi ko Ghana dooree juróomi bal ci euh, benn national 1 fukkeelu bëccëg bi nag asik bu sigi coor dafa daan gasel bu bi ñoo naa benn bal ci dara AS Kolda dafa tëwoo ak AS Kaffrine nam demul ndam dikkul Mbour Petite Côte dafa tëwoo ak AS Cambérène ku nekk benn bal nga dugal sa morom EJ Fatick daan umadal bu mbaaw benn bal ci dara tey nag Kayor Foot dina ci laale ak ñii di waa Gazelle bu Kédougou ca Dakar. avenir bu Dakar dafay dalal AS Saloum ñu dem ci denduk Europe ak 16e de finale Coupe de France Clermont Strasbourg moo ko daan démb ñetti bal ci benn. Racing FC Lille moo ko daan benn bal ci dara ñaar fukki lu bëccëg bekk benn Liga espagnole Osasuna dafa daan Getafe ñetti bal ci euh, ñaar Real Madrid daan Almeria ñetti bal ci ñaar Betis Séville Barcelona ko fekkee daan ko ñeenti bal ci ñaar fukki lu bëccëg bekk juróom-ñett Bundesliga Bayern Munich dafa ñàkk ci kanamu Werder benn bal ci dara Mönchengladbach ñàkk ci kanamu Augsburg ñaari bal ci benn ñaar fukki lu bëccëg bekk benn Calcio italien Fiorentina daan Cagliari ñetti bal ci benn Empoli daan bal ci dara Salernitana daal di ñàkk ci kanamu Girona benn bal ci ñaar Lecce ñàkk ci kanamu Juventus ñetti bal ci dara ma goog day xadi gannaaw ba la ñaane lekk ndaayu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàgga jarami jaa ngeen jëf li ci yéene kaay kaay L'Obs, Le li ci yéene yi El Hadji Seydina Omar Cissé lañ ahlan bikum ñaar fukki candidat ñoo nar bokk ci wote 2024 yi allah waa conseil constitutionnel ñoo jël dogal bi ni mel vox populi ne faa di wax ñan ak ñan la Boubacar Camara Cheikh Tidiane Dièye Déthié Fall Daouda Ndiaye Habib Sy Khalifa Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Amadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Boun Dionne Malick Gakou Ali Nguy Ndiaye Mame Boye Diao Bassirou Diomaye Faye ak Thierno Alassane Sall Karim Wade moom du bokk fañ ko rocci Ousmane Sonko tamit léegi leer na ne du bokk ci wote yi ba tey Vox Populi ne Thierno Alassane Sall nag moo tax Karim Wade du bokk kalaame ba mu defoon ci ñaari nationalité mi moo tax conseil constitutionnel ne loolu yoon fa koy tere ba tax député PDS ya fa mer ba futtu fa sàkku nag ñu amal commission enquête parlementaire ndax fa ñoo sib sona njort ne juróom-ñaari attekat yooyu ca conseil constitutionnel fa xam ñoo xamante ne a ger a Wade na leen hëy man faay bokk ci wote yi moo xam ci nii mbaa ca naa maanaam su ma ne Ousmane la bokk waaye këyit yi nga xam ne nag waa CDC fañ ko ko bañoon a jox loolu nee neen du ci coobare Sonko moo tax conseil constitutionnel ne Sonko du bokk El Malick kenn ci ay farandooram ne Ousmane Sonko kay gàcce ngalaama faxe na ba am na ndam ndax Sonko président tiitalut ko de projet bi soppi Sénégal fexe na ba aar ko ndax numéro deux am Bassirou Diomaye Faye fay bokk ci wote yi te moom mooy porte projet bi Ngagne Demba Touré ne léegi nag fa ñuy sàkku yoon ñu bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu génn def campagne ni ay naataangoom looloo jaadu le république yéene kaay ne Diomaye Faye mii bokkam gi mu bokk fa nara a suul Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy maanaam leader ya nekk yeew yépp fi mu toll ni Diomaye Faye fa la na nar a muur ba duñ feeñ yéene kaay bi ne hée te waaye faa leen de Diomaye Faye mii mën naa gagner élection yi premier tour wala boog ah ko campagnal page Facebook am ba photo jomaay ak photom la ca def léegi léegi patriote yëpp ak ñi bëgg Sonko ak ñi bëgg ñu tëj kaso ñu génnee leen ñoo ñëpp bu ñu wotalee jomaay ba moytul mu gañ affaire bi de àllintin ci vox populi ne man faa rafetlu jéego yi nga xam ne conseil constitutionnel def na ko ngir état de droit continuer ci réew mi waaye liñ teree bokk nag Ousmane Sonko wax dëgg yàlla jàpp naa ne daal fa doy waar info yéen a kaay mel ni ku ko jomaay bokk xaw na yoonu jël ndam li bu Sonko santaane gaañi ñu woteel jomaay te loolu la santaane sax di ndax mooy numéro 2 Amadou Ba nag loolu la xam waaye gars yi faale wuñ ko enquête yéen a ne juróom-ñaari attekade kay wax nañ léegi benn bokk yaakaar ak Pastef ku nekk génn wàlla lañ ko jox maanaam fañ laa xañ li nangul la laa société civile bi ñoom rafetlu nañ dogal yi conseil constitutionnel jël Boubacar Camara nag ci tribune yéen a kaay nee na faa bëgg ngeen xam ne man nekkuma plan B wu kenn nag man maay plan A bu Sénégal Anta Babacar Ngom na ko ak man it nekkuma plan B wu Macky Sall nekkuma plan nekkuma tamit plan B wu Babacar ma waxee ci Ba moom ma ngay seen taxawaay ma ngi ca njiitum réew boo xam ne ñaar fukki candidat ñoo cay bokk lii moom mësta am Sénégal le quotidien yéen kaay na ko xeexu ñaar fukki mbër lay nekk Sud Quotidien dëggal ko na ko ñaar fukka nar a soobu ci géew bi de Mame Mbaye Niang moom fa wax ne téeméer ak ñaar fukk élu yi 92 ya fi mu toll nii wan nañ gannaaw Amadou Ba jàppale tuñ ko ma ngi ko waxee ci waa Grand Place yéen kaay Boun Abdallah Dionne moom ak Aly Ngouille Ndiaye fa ñoo roccee ko ba set wecc ci li ñuy wax continuité maanaam ne ñu a nekk candidat nag te Abdourahmane Diouf ñoom seen janook taskatu xibaar lañ xamal ba léegi di gën wane seen ak naqar ak ñaawlu doxalinu wote wi ña sàkk ñu xoolaat parrainage bi fichier électoral bi fa ñoo ne lii xeeñ mooy gars yi nara amal ak sàcc ci wote yi tappale ndax lu ëpp benn million sénégalais fi toll nii wote woon nañ daaw waaye 25 février gis ñu bëri ñoo xam ne fa dem ba seen bureau de yi ñu xool seen carte d'identité leen yéen nekku ci fichier kaay ne loolu ñuy wax demeewut noonu <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na bàyyi siis fa fas yéen a dooraat liggéeyu grand travaux yu Medina Baye Niass ca Kaolack ndangaan yaaw seetal xam nga biñ gàmmoo ba léegi fañ doon noppalu démb nag fa amal janok ak taskatu xibaar yi moom bàyyi siis ma nga xam ne xalifa général bu Medina Baye moo ko jiite ci liggéey bi ni mel nee na tànt ba wàllu karo yaak courant baak climatisation baak maanaam ba daal moom la ñuy tàmbaliwaat fa fas yéen dem réewum Chine jënd fa mbooleem Baye l'évidence yéen a kaay ne conférence de presse am ba Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Mounhamina Cheikh Ibrahima Niass njiital ansaaru di national teewee na ko rafetlu ko ñaax taalibe yi ñëpp dugal ci seen loxo ka dugal loxom ca poste de santé bu saam dimbale leen du kenn ku may Ahmed Youssouf Benjeloum président conseil départemental bu Kaolack yaaw seetal Youssouf Benjeloum daal démb ci dimanche ji fa jënd ambulance bu jar million yu bari ambulance bu rafet daal di koy may poste de santé bu saam libération ne askan wa nag taxawaayam bi mu yàgg di def jafe-jafe turbine yéen kaay moom fa ñoo xamal ne yaay yaayu Wally Seck faatu Fatou Kiné Diaga génn na àdduna ca réewum France gannaaw feebar bu yàgg bu ko tëraloon ñetti weer rek bi doomam bi ñu wax Momy sekk génne àdduna ndeysaan fekki na ko niiw bi nag àllarba lay yegg si senegal Sénégal googu nag njeextalu ay bés bii ay accident yu garaaw moo xam Ndakaaru Njaay Libération moo ñu ko xamal yaaw seetal caaroy benn bisu Dakar dem dikk fa tàkk ba jeex booy dugg tamit péage bu caaroy hab camion bu def ay cuuju ganaar ba fees del fa faa këpp daanu rond point labat fall waa Saaraar mbëkk camion ba juróom-ñaari nit am fay gaañu gaañu. mais tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn paa daal jabaram fa ñoo jàpp seen doom bu góor di ko mbuqi di ko dóor ba seen doom ja sedd guy faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa ngi amee sa diiwaanu Sédhiou dëkk bu ñuy wax Pontados seen doom bu góor bi fukki at ak juróom la amoon dan fa la sant collège bu Goudomp fa la doon jàngee léegi fa demoon baali ji fecc musique ci guddi gi mu ñibbi si nag baay ja jàpp ko ak yaay ja dóor ko ba gaañ ko mu doxee fa faatu ñàkk bakkanam am ko yëg boole leen gendarmerie takk dere jàpp nañ leen libération moo ñu ko xamal waa ma ne ngeen moo gën a bon moo gën a garaaw li doom ji def gis ngeen doom dóor yu métti ak gaañ fitnaal taxul mu yaru de wala mu ci yoon fa ngay waxtaan ak moom naxanteeg moom yedd ko léegi yéen seen doom ji ndax rey ngeen ko leen kaso ngeen xam ne du fay mukk ana lu ko fi jar jaajëfal leen mbokk yi ci ànd beeg teewlu bi la référence internationale jaajëfal ko bu baax a baax moom Codou Seck madame kenn me nekkoon ci xale léegi yéen ñu fari woon ci déglu bi itam kendalu jàmm dañ leen koy ñaanal di ko ci yéen jaa ngeen le journal. Ndeye Khady Sadio. Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda FM. rajo bi FM. rajo bi ngeen Fayda FM. rajo bi ngeen FM. rajo bi ngeen rajo bi ngeen Fayda.